mbokk bi di maa ngi nuyu kenn ci nekk sa tur ak sa sant nuyu sunu waajur nekk ci biir jataay bi ñu gën koo ñëw ci maam Ndao waaye ci ndimbalu sunu borom defal na ko loo xam loolu doole maam mooy nekk ajaratu maam daaw yàlla na ko rafetlu mu jàmm di nuyu jawriñ général monsieur Mbacke di nuyu waa bitim yëpp gaa yi en di seetaan màggal bi kon waa Espagne ñu ngi leen di nuyu di nuyu madame ñu koy jaale bu baax. suñu taxawaay bi di nuyu waa daayir bi asaabul jannati di jiital ci nuyu bi sëriñ Samba Seck mu yóbbaale ñëpp mel ni fàttalente dafa am solo moo waral ñuy fàttale ndef mbindum sëriñ bi ñun ñuy toog ci jotaay bi kenn ñun fekkiwul jamono sëriñ bi mais fàttale bi da ci am solo ba tax ni ñi di yeesalaat seen toogaay kon fàttali lu am solo la ndokk ba yàlla boolee ku ko mag muy Cheikh Almadiou Mbacke Mbacke yàlla nga fi yàgg tëwee di jaajëfal soxna yi ci jiital soxna yi lu mat a la ndax soxna Oumar Ndiaye Samake mooy présidente ba nga xam ni sëriñ bi da ko jiital ci soxna yi gis nañu taxawaay bi ak soxna ak siise ñoom ak ñoom Awa Sall ñu ngi ko àndal ñëpp rek ñu gërëm ci liggéey bi. dana ni fédération bi mooy fédération ashabul jannati ñu jógee ñu jógee fu nekk waaye jóge fa ñëw teewe jotaay teewe màggal bi day baax ñu di leen di fàttali su ko defee nit ñi xam ne ñu ngi doxalin bi lii la. jëwriñ mattale na kàddu yi ndax li mu wax macha allah loolu moom buñ ci sax moom moom màggal day daal di xalaat gën a am solo la mooy sëriñ bi Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul moom ci jafe-jafe lay sante suñu borom boo xoolee ci yàlla Moussa mu labalee Firawna ndam loolu mu ci am lay lay lay lay lay suñu borom jaal Yusufa mu génne ci teen bi ndam loolu lay lay lay sant suñu borom bi ci silmaxa bi loolu lay sant suñu borom kii dañ koy jël yóbbu ko ci ay nattu moom mu ci sant suñu borom kon bés bi day jaalu mbokki taalibe yi ñu leen di leeralal ñu xam yokk seen pas-pas te damay faral di wax bi li nga waxoon daaw rek mu <laughs> ngi ci internet bi dañ ci dolli rek ndax comme daje yombul yu mel ni mu amee dañuy fàttalante su ko defee rek ñu gën a boolewaat nekk benn di nuyu sëriñ Saliou Diop nga xam ni moom la ñu jël doxale ko ci suñu kanam Abdou Fall di di Cheikh Diouf Souleymane Cheikh Adama Sall ñoom ñëpp mbay Diop yëpp leen wax ni nañu gën a fonkantewaat gën a doon benn te muy dëgg wax dëgg amul def dëgg moo am booy jàng xasida yi yaa ngi wax dëgg sooy jàng alxuraan yaa ngi wax dëgg est-ce ngi koy def ñu góorgóorlu ci suñuy biir di dimbalante di jàppalante lu am solo la loolu lu ma neex la boo gisee sànq xale yi kuréel bi di ma am fu mu yóbbu euh, jëwriñ wax na ko ñu ngi koy jaare ñoom tam médecin yi foofu boo ci taxawee rek mën nga yàq programme waaye mu bëgg ñu rey ñett jikko yi ci sëñ bi kii danoo yàgg de ñu rey ci moom ñetti jikko yi ku yaatal la nit dong la nag ku laabir la ku fonk doomu aadama yi kuy taxawu njabootam la kii fekk nañu fu ñu jëlee ci tey ñaari casquette laa taxawee doon ab taalibeem tey man maa représenté état fii ci biir daayira ndax saa sa démission la assemblée nationale maa fi teewloo assemblée nationale lépp ci mbaaxam damay boros tuuti rek ci clair aadaa ngi ci jotaay bi li ma dem dama dem ma toog lu yàgg gisuma dara man dama am kilifa moom mooy sama kilifa non ma oo ma ñaar oo ma ñaar Cheikh Almuniru Mbàkke laa gëm point bu mu ma keneen ma ne ko Mbàkke man de maa ngi taxaw fii xaar boobu ba léegi demal nga toog lépp dina baax baatam tontu la ñoo toog rek ñu woo ma téléphone li ma suba ñu nga ñëw ensemble à ci bis bi lañ ma defaral lépp ci bis bi lañ ma jox lépp lii ma sol ñoom ñoo ma ko jox kon kay kii man gisu ko luñ ko defal kon nañ góorgóorlu góorgóorlu gi mooy bu ñu bu ñu kenn gis ci lu ñuy xeet góorgóorlu gi mooy ñu xool ci moom rek référence ci koppi ci moom rek bañ a xool dara bañ a tal dara pour àdduna mii fi koy bàyyi bés ñëw nga takk sa mbokkum jullit gas kàmb bu mu xóot nga dugal ko ci ba pare nga lu dëgg nga jël suuf doole ci ñëw toog sa kër sa xel di dal yow doo nit liggéey bi moom lu laal suuf kanam rek la jëm moom ay mbiram de ni mu ko bëggee mooy yaatal mag ñi yërëm gone yi gone yi xam ne ñii seeni kilifa lañu loolu rek mooy liggéey mag ñi yërëm gone yi gone yi xam ne ñii seeni kilifa lañu loolu rek mooy liggéey waa bitim réew ñu leen di gërëm ndax baatu jërëjëf li muy gàtt gàtt deful dara du ko teg kon ñu ngi leen di jaajëfal seen xéewal gis nañ ko gis nañ li ngeen waaye ku nekk rek li nga def ci Sëriñ rek na nga rek loo loola rek la mooy mooy moom ni picc mi naawee ba ca kaw cof ci géej gi naaw toq toqi ndox yooyu muy dogalaa loolu loolu rek nga ma waaye géej gi moom macha allah mooy sëriñ bi man du ma mën a wax ci moom yu bëree bëri du ma ko mën ndax dafay am lu mu lay indi loo xam ne mën nga koo wax ni sax mu wéete ko xelam nga nga lor ko daa toog rek waaye nit de barki borom Tuuba boo nga ne ajaratu fekk nañu fu daje nañu fu saa bu bu dajee rek góorgóorlu leen lay wax góorgóorlu leen góorgóorlu leen góorgóorlu leen bés dana ñëw dana baax li ma gën a marqué sama dund xel koom li ñu mujjee def alaaj jaba yàlla ko yàlla yëpp ma bu ma dee doxee nii ci sëriñ bi alaaj jaba la may ñëw mu ne ma sa sëriñ bi ñëw na fi de la seen may wër xel koom bi ba daje moom ma sol tenue de travail di liggéey xel koom sama jëmm joxee bi lii mu may présenté wu sang yi maam mi ñëw ëndi ñu fa glace bu doy miskit meew lépp ëndi ñu ko boo déggee may wax fàttali dafa am solo am na kuy doog a ñëw te gisul ndab li ba muy tàng dafa fekk mu sedd boo ne ko ndab li daa tàng du ndax mu sedd da nga koy delloo si ne nii am na fu mu jógee ba agsi bii jékki-jékki wul xëy ni cëpp ndax am na ko téye ba mu agsi bii te maa ngi dund bu tax sama bakkan bi rek laay joxe ba liggéey bi du laal suuf ba mu dajeeg maamam di tedd ga Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu ma joxe sama bos mu dem barke Cheikh mu ne ba maa ngi yow parce que buñ a muy la gën ay góor yaa ngi topp ca terrain ba di albité ñuy ñëw ndekete yaa ngi tàggat njaboot gi tey ndekete lii la te nekk ci quartier bu doy waar muy Thiès ba ca gën a garaaw mooy si nga dajee fa mbooloo mu toll nii pour ñu dem ba mën a taxawal kuréel loolu jaayante dëgg la koy may ndokk ba ñu xamee li xew nañu góor góorlu tey dëggal man ndey bi Cheikh carte blanche laa yor fédération ashabul jannati bunyi dajah bar yang sendiri pun dia kan tu pelas lagi tu mak mikul lagi tu wah mudah mudah mai wah cik kanamu allah ya, yang malkiam bun fadaje menui mai wah biye kalau kamu belum hamba Pas kili dia tu langsung ku teteng ini ku goreng ini ku yiwang ini ku bëgg lu ini, ku kulen len ku bëgg ñëpp fi sëriñam di toog di la woo téléphone naan la sa xoolal sa orange money wala xoolal sa wéef wala leen ma ko kuy ngénte yaa ci man kuy takk soxna yaa ci man ku feebar yaa ci man ku am jàngoro yaa ci man mbàkke jërëjëf yàlla ci sunu maa ngi ñaan ci sa bàkk dimbali jéegoonu dimbali ba def ay nit def ñu dëgg dëgg taalibe Mbàkke yàlla na nga man tiituma dara ragaluma dara man kii rek laa gëm kii mooy sama wéeruwaay kii sama fit man rek laa gëm mu ne Mbàkke Jóob bu doomu Saalif Jóob bi mu xamee ni mi ngi toog bi mu xamee ni man du ma turandoom yàggul daa defaroon maay turandoom ndax ma xale yi gisee dañ naan sa turandoom ne mu daw di ñëw ma ne ko sang sang bi la nga tuddee loolu pas-pas la nañu gën a góorgóorlu di ñaan yàlla yàlla nu yàlla dolli xéewal yàlla dolli ñu sutura dolli ñu taw féex lépp loo xam ni wax nañu ko ci kàddu yi mu xaw a dëng matalik doomu aadama nag nag mi jë yàlla rek moo mat bu doomu aadama matoon yàlla manqué moo tax ci manqué boobu mu ñooy noonu li gërëm médecins yi nga xamante ni ni ñu ko waxee rafetlu ko ndax ñoom it saa su nañu euh, tey itam seen taxawaay rafet na am ngeen taalibe bëgg ngeen lu baax yeneen ngeen nit ñi ngi koy gis ñu gën a fële feddal suñu diggante ak yéen di gën a dëgëral kóllëre di ko gën a doxee ñu sant bu baax mbokk taalibe yëpp di gërëmaat waa bi ci di leen santaat bu baax a baax baax di wax ni rek comme ni ko daan defee mbàkke addiyee ji ab taalibe daa war a sasoo addiyee ndax yoon wi addiyee moo koy doxal kon addiyee dafa baax ci ab taalibe di ko jaayante akub sëriñam ndax bi nga toogee fii mbàkke da nga ni bis dina ñëw day takk ay million teg suma loxo bi te loolu yàggul dara lii ci kanam tuuti la rek lépp dina ñëw kon ñu gën a góorgóorlu ci xaddiyee di ñaanal nag ñi nga xam ne ñoo bokkoon liggéey bi te ñu wuute man mën nañ cee ñu bàyyi waaye nag ay jàmbaar lañu woon waaye yoon yi noonu rek la dara du ci laal suuf wàcc rek ñu jox la Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul is loolu rek la ndigal li xam ne kenn xamul tey yàlla moo xam ëllëg laaw axlam kon loolu lu ma ñor la lu ma bëgg la te lu may sàpp nag wax na ko ci moo tax ma bëgg parce que lu ma ñor la nañu benn noota bàyyante xel yàlla mi ne ñun ñëpp la fi nekkal kon ah, mbokk taalibe yi yéen ñëpp xam ne teew ngeen ci bi comme ni ko daan defee rek ku ne na yëkkati barkeeloom teg ko fii ci kanam buuna sang bu tedd bi waa fédération bi ashabul jannati ak daayira bi yëpp ñoo dajale seen siyaar di ko def comme ni ko daan defe Mbàkke di la ko siyaare addiyee jaar yi noonu kon ñu xamee ko noonu ñu gën a góorgóorlu rek yàlla na yàlla doon jàmm doon ñu sutura doon ñu tawfeex maam ñu ngi lay ziaral lu bari di ziar ñoom ajat ndey géy suñu yaay yu baax yooyu suñu tante yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant suñu taxawaay bi wax ba nga ñëwee ba léegi yéen a ngi toog di defar di di di di jubbanti gone yi ñu ngi leen di leen gërëm di gërëm ñëpp di baal ak ñëpp di wàcce kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Mounirou Mbacke

jëwriñ Saliou Seck jëwriñ Baye Sidi ak jëwriñ Seck Mor Bamba Faye macha allah di leen ñaanal bu baax a baax it fii ñu toll ci liggéeyu sëriñ bi fii ñu ci nekk yal na leen suñu borom eggalaloo ak seen soñ waaw kon loolu ñu bu baax baax te ni